asalaamaaleykum mbokk téléspectateur télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq waaye itam di leen baal àq di leen dalal jàmm nag ci seen émission bi di wareef ñuy ànd ak yéen altine talaata àllarba ba alxames si kàttanu suñu borom bi may am mbégte nag saa su nekk di feggoog sama nijaay sama kilifa sama xarit Alaaji Njaay Loo Njaay maa ngi lay nuyu di la ziyaar di la sargal di la ñaanal yàgg fi lool lool lool lool lool te wér bisimilah alaaji jërëjëf soxna Degene yal nañ ko yàlla may nun ñëpp amin amin alaaji waaye nañ delluwaat ginnaaw sant ci taxaat nu toog dëgg la borom dëgg la alaaji am nañu nelawtu yeewuñu am nañu yeewuñu yóbbu leen ndeysaan buñ toogee bay waxaat yal nañu yàlla dimbali nu yàgg fee toog ci moo yor lépp moo lépp amin lu waay am mooma fu waay fi saa borom perte dëgg la yal na yàgg toog ñetti was may wax xelum doom di dal. dëgg la bu mu tuuru fu mu jaar fande. dëgg di la siyaare bu baax di la ñaanal jàmm. aysan. di ko ñaanal sa waajur yoon sonn. te fekk lépp walaay kamara ji bi anta booy jërëjëf te tamit di sa waajuru góor yal na ko yàlla ak yonte bi Serigne Touba teew. aysan amiin amiin amiin yàlla salamaan. bu baax sama xalifa. Mm-hmm. Serigne Sidi Mbackeem Cheikh Abdoul Ahad. aysan aysan yàlla na fanam gudd. amiin amiin alaay yëpp amiin kër gi nag di ko ñaanal mu yuusu maa jigéen nee naa ko woon bu yàgg ba ni su ko ubbi fii mm. sama sang ba sëriñ Abdoulaat mbàkk nee na booy liggéeyal aw askan te yàlla tax mm. ki te des ginnaaw ba mu ne pexe jiitu la demal ba ko bul geesu dëgg la na dem dëgg la jigéen su ma nee bul ko digal palaat bi muy toog dëgg la yooyu su mu yor yàlla dimbali na ko ba du rëcc dëgg la laajte maa ngi ko siyaar di ko ñaan bu baax ñaan ñaari waajur mi doon sonn ndeysaan ak mara ñoom ñu koy jàppale ak doom bi directeur yi yëpp rawante nag rakk ñu nekk fii nag ñu yàgg ak buuba ñun ñëpp barkal ak jigéen ñi ndeysaan ndeysaan di siyaare bu baax kilifa diine yëpp ndeysaan waaye imam Cissé nuyu na la ndeysaan imam Cheikh Tidiane Cissé Cheikh Tidiane Cissé mu dina bàyyi alors <laughs> nuyu na la sama imam mooy sa imam wax na ko <laughs> fala fekk alaaji Adi Wade mu seeri ci yow loo xam ne ak baax nga ko di def waaw kooku di waxee doo ko fekkee kooku ma formé yàlla na ko yàlla defal jàmm waaye imam yàlla na yàgg a jiite amin amin yaa rabbal alamin alaaji Baaba Niass waaw waa Baba Lamine Lamine macha allah tubaarkalla macha allah uh, yal na ko yàlla defal jàmm amiin yaa rabbal alamin uh, defal ko mboolum xalifa ba ak waa Medina Baye gépp amiin na ñoom ñëpp ndeysaan ndeysaan alaaji kilifa yi diine yi dama ni diine la dëgg la kenn mun ko séddale kenn mun ti dem baleen dëgg la alaaji lu waaye sumb ndeysaan buñ ci àndul sam pot du set la alaaji bu dee ñoom boo sóoree doo yàq ndeysaan nan delluwaat ginnaaw te xam ne diine jëkk diine mujj dëgg la alaaji di ñaan mën sóor ñas bu baax a baax ndeysaan eh, yàlla na ko yàlla defal jàmm xalifa amiin amiin amiin gërëm na Sëriñ Fallu ndeysaan xam nga man diggan ñaari ngi yëpp bëgguma ko mhm. kuñ tudde kilifa mhm. nga ni fàllu foo ko waxee saa yaram day daw dëgg la mbaa Alaaji Abdou Si mbaa Alaaji Maalik. dëgg la dëgg la mbaa keneen. dëgg la doo ko sàllal dëgg la. bu ma déggee ko wax sama su ñu ngi koy siyaare. ndeysaan ndeysaan. te nag émission bi neex na. ndax man. Mm. <laughs> Touba ma saf. Ah. waaw dëgg la ñëpp laa jox cër. dëgg la waaye kenn ku ne bu la neexee nag ni sama soxnaa dàq ci soxna. dëgg la kese. kese dëgg la Touba ma. jigéen ñëpp nañ waaye sama soxnaa ci dàq. moo ci dàq sama soxnaa dàq ci jigéen ñi <laughs> kon Cheikh Amadou Fadal Mbacke ñu ngi lay ziar bi dalal ci émission bii ñu yëg ndax émission bi thème bi ñëpp ci man a toog dëgg la ndax lislaam la dëgg la ah wuyu lislaam la mm, mm. ak la Seydina Muhammad wax sallallahu alayhi wa sallam te mañ ci loolu lañu yaru ku ñu lay dalal jàmm di ko eh, di ñaan nga ñaanal nu jàmm ñaanal TFM ñaanal mboolem ñi fi ne ñëpp ñaanal borom kër gi ndax ku la gis mu xel dal dëgg la macha allah ñaan bu baax it alaaji baabu mi nga xam ne mooy sa trésor eh, waaw waaye ndokk mu signé <laughs> eh. te du mu signé ma alaaji man yaa ma ñëw waa tey li nga sañ sa tey li saxaawoo ma moom da nga maa kase ndax. xam nga keroog dama jaune nga jaune. wéduma loolu dem ma weer nga weer kéema mu sa xaw lii dina ah. bàyyi. dañoo tegale. Ah. te dama ah. bëgg. <laughs> maanaam maanaam. dañoo tegale yii. même mi dina bàyyi. baaba jaar fii. <laughs> baaba. Adja Fatou Samb tegaleegul de. baaba baaba fii rek. xam nga yàq dërëm. baaba moo jaar fii. <laughs> macha allah kon yow dañ lay ziar waa dem lay ziar. waaw ñu ngi ziar baax dañ lay ziar nee ma sol ko te dem. ndeysaan def naa ci lépp. ndeysaan ndeysaan ak plateau ba yëpp. ndeysaan macha allah ci barke Baye. macha allah macha allah am nañ mbégte alaaji na teg téeméer mag mu baax nga mag mu oyof nga macha allah mbégte la am fa tabarakallah macha allah tamit dalal sëñ fallu mbay moom tamit ñu ngi lay sargal bu baax a baax la ziar bu wér fa tabarakallah macha allah ziar fa nga jóge fa tabarakallah macha allah di am mbégte tamit dalal la ci télévision Futur Média waaye naam ci seen émission bi di wareef kon sëñ Fallou nuyul askan bi bisimilah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa man ihtada bi hadiyihim ila yawmi ddin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi nuyu soxna Degen bu baax baax di leen ziar di leen ndokkeel di nuyu alhaaji Baye Ndiaye Lo xam ne sunu bàyyi la sunu kilifa sunu lépp lan di leen nuyu baax a baax di nuyu borom télé bi tam ak waa mbokki TFM yëpp di nuyu itam mbokki Sénégal yëpp rawatina kilifa yi diine yi di ziare ñëpp di leen balu xaq tey baal itam ñëpp xaq tey ñaan si borom bi boole ñu baal ñun ñëpp bi jaay Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam nuyoo bi nag maa ngi ci jiital sama wéjur di Serigne Daouda Mbaye xam ne mooy sama wéjur di sama Serigne macha allah jàngal ma di sama lépp ci jiital bu baax a baax di nuyu itam Cheikh Abdou Salam Mbaye xalifa maam Cheikh Mbaye bu Louga macha allah Serigne Mouhamadou Mbaye di nuyu Cheikh Sidi Moukhtar xalifa Cheikh Ahmadou Bamba ñu leen ñaaral ñun ñëpp nuyu sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Seck sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Seck ak sëñ Cheikh Tidiane Niass waa kuntu kuntu yeeg ñëpp rek kilifa diine daal bu ñu ne dañuy dund daal ñu ngi jaare ñëpp di la jox wàccuwaay bi leen seen borom bi jox ndeysaan eh, kon xam naa ci gàttal nuyoo bi rafet na macha allah eh, suñ fàllu kontaan nañu lool hmm. xanaa àndaat ah, rek ah, dëgg ma nag aw ah, nag nee na añul allah nee na laa seetaan ndeysaan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 dugg ci hôpitaux yi dugg ci dispensaires yi dugg ci case de santé poste de santé yi ba ci néeku lënd mi ndax ñàkk axankay am na ba ci mbedd mi nemmeeku malaat yi waaye sañ nañu ñaan buur bi nga xam ne moom rek mooy docteur bu mag bi moom yaa rab bi yal nañu saafaraal waaye tamit saafaraal leen bépp xeetu jàngoro bu nëbbu ak bu feeñ ci barke laa ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñuy àndaat ki yéen ba tey du ñu tàyyi de dugg nag ci prison yi ndax béréb yooyu jombul kenn de nañ ci bàyyi xel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 xam ngeen ni nag seen émission bi di waree wareef ay tam la mu mel ni ñaari ayu ba sëñ nii ñu yëkkati tam boo xamante ne tam bu metti la ndax suñu sañoon waajur suñu ko waxee rek dañu ciy teg lu sell lu rafet ndax kenn mënut tafe fay waajur waaye jamono di dox ba ñuy bëgg detteel waajur ci anam bu deew jamono di dox ba xale yi di door seen waajur jamono di dox ba xale yi di xotti war ma seen waajur jamono di dox ba xale yi di fitnaal seen waajur jamono di dox ba xeetu fitna bu ne njaboot yi di ko jël di ko teg ci waajur aka ñoo ñàkk dégg ñàkk nañu dégg lool lool lool lool lool nasaraan bi ko waxee toute forme de violence exercée sur les parents qu'est-ce qui se passe lu xew

22 euh, 99 sooy wootee bitim réew léegi numéro yi affiché waaye Alaaji tey xam nga damay entraînement tuuti balaa ñuy dem ci revue de presse. Hmm. laaj ma damay entraînement we nii laaj ma. Hmm. sama loxo yi laa entraînement bi. waaw maye laaj ma lu may maye. looy maye ay ticket. Ah. <laughs> laaj ma ticket fat ticket fat <laughs> xanaa Youssou Ndour mi nga xam ne baat nañ ko ñun waa groupe Futurs Médias ba ba ba muy tëgg fête de la musique ay ticket da laay maye ku wootee ma may la ticket. ku woote rek entraînement wala yow tamit defal ni Alaaji defal ni yow tamit xam nga da ngaa tame entraînement wala sëñ bi moom dama ko wax mu entraînement waaye yow yow mala ndax entraînement <laughs> ah xoolal xoolal ni may def ah xoolal xoolal Alaaji eh, xoolal eh, xool ma ah ma ah, àndale yow noo ko defee ah Alaaji xoolal xoolal xoolal man tam <laughs> xam nga kuy maye da ngay da ngay trané ma sama loxo yi laay bañ mu kii maye rek waaw sama diggéen ah, ku woote ma may la ticket Alaaji Baba waaw mintu soxnaam tey jii la rakkam lañ koy rob. macha allah jaale nañ ko démb. Baba Traoré. Baba Traoré la. ndeysaan bu Moustapha Mbaye mintu soxnaam rakkam. ndeysaan di faatoo bitim réew. ndeysaan jii lañ koy denc. inna lillahi da ngaa wax sànglu. ndeysaan ku ne ci bànneex am na ku ne ci. la dëgg la addina bi noonu la àndal ci bànneex. waaw wallaay wallaay macha allah ñu ngi ko alaaji Baba ak transitaire yëpp. allah macha allah defatina lëf. macha allah entraînement. yàgg naa maye. déedéet yëguloo ni kenn du fay dañuy maye déedéet amul fay ticket yi groupe Futurs Médias moo ko moo def événementiel am xëcc ko ñaan ko ko ci fête de la musique comme na ko Jacques Lang defoon. léegi alaaji groupe Futurs Médias dañu gën a. waaw déedéet xam nga diggante dafa am lu xew rek. Hmm. jéeg bu ko wàññi jépp lu mu dugg ci biir bu yekkee ñëpp am. ba tey ci Groupe Futurs Médias rek. <laughs> te du gis nga ñeenti caabi mbégte yi ma la waxoon. ñeenti caabi. <laughs> ah, ah, ah <laughs> gis nga commencé woote. ñoom mbéy mi waaye dañuy waaye dañuy dem seetaan revue de presse dellu si lancé. yaa ngi wax de ah, entraînement naa nag waaye dañu dem al seetaan revue de presse fu mu ne dama tegal euh, tanoor carnet ak dikk ne ko nay jël. waaye nag waaye nag euh, nañ nañ dem seetaan revue de presse bàyyi ñu doser tuuti lancé ñu dem. waa dinañ ci delloo siwaat rek euh, problème technique bu ndaw la ci mbiru revue de presse bi alaaji euh, ginnaaw kilifa gi toog na fàttali ñu thème bi waaw li ñuy fàttali mooy rek dama ne ku négliger sa waajur sa baay hmm. gis ku fonk baayam waaye ki fonk baayam ak ki négliger baayam di waajuram suñu dayee yomb siise yomb xàmmee dëgg la du ñu bokk fu ñu jëm du ñu bokk lu ñu am dëgg la du ñu bokk dundin du ñu bokkit ñu leen sopp ndax ku négliger la nga am hmm. foo jëm amatoo fa dara. dëgg la loo yaakaar mu tas. dëgg la gëmatoo saa borom. Mm. yàlla berne la te ko yàlla berne nga tumuraange. dëgg la laaj. ginnaaw saa borom. Mm. mu la bind. Mm. ñaari waajur la la boole. dëgg la jëla ki ci <laughs> ah, salaam. ah Ndiaye. kan la. man la Cheikh Jong. Cheikh. Cheikh Jong laa tudd. Cheikh Jong depuis Genève laay wootee. Genève Suisse Genève. Euh, Suisse laay mm. wootee. Cheikh Diong Suisse Cheikh Diong def. Mm. noo ngi ziar baax. yàlla yàlla na nga man de xanaa xanaa so soppali loolu te it mosoon nañu jotante ëpp na fukki at xaw ma ëpp na fukki at ak ñaar. émission boo doon def ci lu jëm ci wàllu jigéen ñeeg euh, ak sëy. RTS la euh, Naar mm. ala Ibrahima Fall Naar. mu yoroon xalam. wax nga dëgg de. dama ko enregistré woon. daanaka waaw loolu yàgg na waay. dama koy déglu. ndax dafa jàlloon ci rajo bi. waaw waaw. waaye xanaa di ñaan yàlla yonante bi ak Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima rek mu yàggal la fi ndax. amiin nu bokk. émission yu mel nii daanaka mën naa ne ci xaaju ndaw ndaw gi laa bokk waaye nag da démb damaa ñor. Mhm. te li tax mu ñor ma mën naa ni ci ci sa jëmm ji la tàmbalee. ndax dama déglu woon émission boobu fekk na boobu ma ñëwoon Sénégal vacances. Mhm. ay trois matin ma tombé ci émission bi. ma enregistré ko nag boobu ba tey dama koy déglu ba fii may toog ni band bi maa ko yore. band bi mooy biréle waaw daf ko indee daf ko yóbbu ba suuf di ko déglu. yooyu yëpp nag ma ma lay wër woote woon naa ci télé sa numéro. waaw ndax bëggoon ñëw ñëw siyaar la rek. oh ndeysaan ndeysaan waaye nag yàlla dogalu ko woon ba tey jii mm. dama xëy di waaj liggéey gis émission bi. man mm-hmm. nag naa ci barkeelu rek. jërëjëf yow nag la ñuy ndax ndax. dama yaakaar gëm naa ni émission yu mel nii dafa war te it damay faral di wax sama mel xarit man ne ko tele Sénégal bi li ci ëpp de na ma yàlla baal manaam jëriñul nit ñi. Mhm. waaye nag am na émission yoo xam ne mooy lii jëriñ nit ñi te it war nañ cee farlu lool lool lool. ñi nga xam ni ñoom ñooy delloo nit ñi di ñu fàttali suñu askan dañu fàttali doon ak li tax yàlla bind indi ñu fi. jëmm yu mel noonu lu ku ci mel ni si euh, Ala Ndiaye Lo Ndiaye ak ña ca des war nañ leen di jox rajo bi ak télé bi. lu ëpp liñ leen di jox waaye gëm naa ni suba mu ngoon jot dañ leen ma jox rajo bi ak télé bi. buñ ko defee gëm naa ni ñëpp daañu jub ñëpp daañu delloo seen xel te ñëpp daañu tegwaat ci yoon. ndeysaan jërëjëf Ndiongo. ndax waxu waxu leen fi len lenn loo xam ne ngir sargal kii wala kële waaye nag dëgg yàlla ngeen wax te it man mii ci li man nga xam ne suñ bi dama koo nàmpal sama sëriñ muy sëriñ Issa xam naa xam nga ko. baax waaye daf may faral di wax ni askan képp kuy def lu baax wax ko. <laughs> ndax ñi nekk ci gannaaw seen mbayaf ñaaw ñu mën cee roy bu ëllëgee lu ñu bay. mën a rafet. Mm-hmm. jërëjëf Jongo. kon maa ngi lay sant bu baax. di ñaan jërëjëf maa ngi lay sant Jongo ak Cheikh Ibrahima mu guddal sa fan. amiin amiin yow balaa la sëñ sëñ Fallou Mbaye noo ngi koy siyaar bu baax ndax. li tax ma ma dellu ci sax ndax mën naa ne ci kóllëre ak saam Sam Mbaye. ndax Sëriñ Sam dama ko bëgg te mosuma koo teg bët ci saayir. waaye nag mën naa ne sama tarbiya li ci ëpp Sëriñ Sam moo ko def te fii laa nekk moom mu mu nekk Sénégal waaye ci ay conférence yooyu ci laa mm. tarbiya sax ko. bëgg baax maanaam naa lu bëri ci xam yoonu yoonu Sëriñ Tuubaa yoonu yàlla. ci kàttanu Sëriñ Sam ak sëñ bi. oui barkeel a kon Fatou suñu Fallou noo lay bu baax di ñaan nga yàgg fi lool lool lool. ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaye yàggal taxawaay bi. amiin yaa rabbal soxna si émission yu mel nii maa ngi ñaan suñu bi daal mu yàggal la fi. amiin amiin yaa rabbal aalamiin ndax ndax thème thème yu ni mel. ndeysaan maanaam dafa jot sëkk sëkk sëkk Sénégal delluwaat seen xel xam ku ñu doon. dëgg la dëgg la Mbaye. Hmm, jërëjëf Jongu. ndeysaan. kontaan naa fukki at ak ñaar muy wax wallaay macha allah boobu laa yor birélé waaw noonu bëgg baaxee <laughs> gis nga àllaaji xale bu ci bëgg baax di nga déglu lu baax wallaay di nga ut ay référence <coughs> te kat boobu doo bu la ci nax la dëgg la bu la mag di ndaw dëgg la ku fàtte démb tey nax la dëgg la ndax démb hmm. moo waral tey lii dox ak si néew am dëgg la ma ngu démb ya cosaan ya dëgg la laaj jikko ya bokk ga. dëgg la diine ja. dëgg la ak ngor ga. dëgg la kon lan moo dagg tey ba xale yi bëgg def seen wéyjur yi moo. dañoo roy ba dàq. ba xamatuñ fu ñu jëm. dañoo xamatuñ fu ñu jógee. dañoo jéggaani. jéggaani jërëjëf. jéggaani nag ak jéggi daa bokkul. Mm-hmm. jéggaani da ngay làmbatu. Mm-hmm. ma nga dañ daan jéggaani. Mm-hmm. lu baax. yokk ci li ñu am. laxas daan nga ko dégg. borom xam-xam a ko daan def. xaale Mar juddoowul Sénégal di juddoowul Kajoor mm-hmm. particulier ku ju dala laxasoon dem Fuuta mm-hmm. ngir ngorom ak njàngam mm-hmm. ñu may ko fa soxla su baax moom ko ca kon li xale yi def léegi dañoo roy ba dem te fi ñu jëm xamuñu ko muy lëndëm ko courant coupé ñuutu tàkk kon sëñ Fallou thème bi lii la <laughs> xaaral ma jël ki ci lii allo <laughs> <laughs> ah, allo allo waaw soxna si taa ñu ngi ziar. waaw fooy woowee Euh, Mbour. naka waa Mbour. sant yàlla bu baax bisimilah ci thème bi. waaw dañu bëggoon participer thème rek. ñëpp a ngi lay déglu. Tadegin. waaw dafa mel ne ñun dañoo xaw a ñàkk référence. da ngeen ñàkk nu mu demee. référence. waaye ndax da ngay gis ku yar doomam ci këram. yo yokkal baat bi nag bu baax. xale bu ñu yar ci kër. Hmm. mu judd am 3 ans. Hmm. ñu ne mënaluñ ko dara. mënaluñ ko dara. yaay boo yaay waxee mu ne mënalu ma ko dara. Hmm. gis nga xale. suy judd indiwul benn salte. lépp lu ne si moom rek waajur yi ñoo ko si def buy hmm. in ñëw ay cas yu vide lay indi hmm. boo ci defee njub def ci yar def ci teggin def ci sutura hmm. loolu rek moo ci ne boo ci defee ñàkk kersa def ci ñàkk worma loolu rek moo ciy ne te olof nee na ku yar kuy balaa daan kenn yow rek lay daan. dëgg la lépp loo def sa doom naka su dul noonu. ndeysaan balaa mu koy def kenn ku ne si mbedd mi. ci yow lay njëkkee. dëgg la kon yaakaar naa dañu warul dellu. yar wallaay wallaay wallaay wallaay. lan lan rek leen rek mooy avantage am. Mm. yar. ndeysaan xale kenn du koy yenn du yërëm ko dëgg la parce que teg ko fitna la après. dëgg la mais li li li li yoon mooy. ndeysaan bu juddoo rek yaral. dëgg la boo ko yaree ëllëg ki si loo ci bëgg di ko ci am. ndeysaan waaye boo ko yaroo loo ci góobee rek da nga koy gaar. dëgg la dëgg la baal ma kontaan nañu. xaaral Tanor tanoor jël na sa tur ak sa sa sant. ak sa téléphone pour nga gañ a ticket. déedéet Tanor loolu ngay njëkk def balaa nga ñuy paas kenn jël ko foofu jël turam ak santam ak numéro mu gañ a ticket concert Youssou Ndour bi le 21 juin. te du fay dara bu day gañe ku ci oote rek Tanor nañ def noonu balaa ñu ñu koy jox sax. Hmm. ñu jël leen parce que tamit euh, lool loolu la Groupe Futurs Médias digleeg ñoom. Hmm. dañ leen di may ku woote.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 wa yassir lii amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimu al-hakiim wa maa uutiitum min al-ilmi illaa qaliilaa kon soxna dégg comme ni nga ko waxee rek. xale yi dañoo ñàkk ay référence ay royuwaay. Mm-hmm. xool daanaka. ci ñu baal ma ci film yu bon yi. ak ci internet yi ak yi gis ci bitim réew yooyu la ñuy jéem a roy. te yooyu ñu du suñu wàll. dëgg la. ndax bu ñu xoolee wayjur yàlla bi mu waxee ci alquran baad auzu billahi min shaytaani rajim wa qadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyyahu wa bil waalidayni ihsaanan yàlla def na bi mu dogalee ne nañ ko jaamu moom subhaanahu wa taala moom kenn rek rek rek rek mu ne te nga xafta nag si ni ñaari wayjur xaalis bi mu waxee boppam ba noppi rek ñaari wayjur la ca teg la ci teg hmm. mu delloo xaar ci beneen aaya bi ne aouzu billahi min shaytaani rajim hmm. wa abudullaha wala bi bihi shay'an wa bi waaye waalidayni ihsaanan nañ jaamu yàlla te buñ ko bokkaaleeg dara dara dara dara hmm. waaye nañu rafetale si ni ñaari wayjur dëgg la kon ñaari wayjur buñ koy déggee kon way jaare laa koy wax man way jaare ndax suñu borom subhanahu wa bu ko neexoon comme ñu bindee maam aadama xam suñu borom subhanahu bind dafa bind maam aadama mhm. moom amul ndey amul baay mhm. suñu borom bind ko rek ci coobareem ci kun mhm. fayekoon mu mel ne kon muy benn mu jël ci faaru càmmoñ génne ci suñu maam xawaa kon dañu mën a déggee ne maam am na baay waaye amul ndey troisième bi muy yonente yàlla isa alayhi salaatu wasalaam moom mu am ndey te baay ñeenteel bi nag mooy ñun ñi amatu naas ñun mboolem ni ñu xam ne dañu am ndey am baay kon suñu borom subhaanahu wa taala bu defee ndey ak baay pour ngir ñu topp ko ak ngir ñu am ci moom yërmaane mhm. ak ñu am ci ñoom ndimbal mhm. waajur tam ngir ñoom tam ñu am ci doom yi cofeel mhm. ak yërmaane ak ñeewant xaar ñu jël ki ci ligne bi allo asalaamaaleykum waaleykum salaam sama bos na nga def sama bos bëgg naa la maa ngi ziar Adja Madame Guèye Adja dem Madame Guèye ah, fii nga bokk wallaay naka waa Wakaam ñu ngi fii la waaye de ah yow sa papa yow yow sa diggante moom dama cee xaj xëy ju de nangu naa ñëppam. ah nangu naa ñëppam. waaye de man de maa ngi fi yow sax tey. ah jeex na ak monsieur ak monsieur Korombay ñëpp ñëpp ma nga naan ñëpp. waaw papa da nga ne woon da nga koy listixaar de waaye defe naa Bleu Rose ànd na de. ah Bleu ah, Rose ànd na tey def gis nga ni ma defati. <laughs> gis nga ni ma aw rek. waaw ma lay féliciter si kii bi sa décoration ba. wallaay wallaay. yow yow yow dañu jóg di la décorer incha allah jërëjëf jërëjëf. incha allah. alhamdulilah yow da ngay suñu royukaay dañ lay sant. walaay walaay ndeysaan jërëjëf papa mu wóor yàlla ak yonent bi. waaye dégg ne moom décoration bi nag. ndeysaan xool ko moom. mi ngi ko jox man la ko yéene. waaw nee na maamam décoration bi dégg nga sax. Um bureau umu ma jàngale bu baax madame Ndiaye. ndeysaan jërëjëf nga nga oyofal sa bopp trop waaw bi ñun sa dayaluñu si yow asamala auditeur yi. spectateur yi ndeysaan ndeysaan jërëjëf jërëjëf ñu ngi kii sargal suñu gan boobu ndeysaan wallaay wallaay sëñ Fallou man kànne laa am papa Ndiaye loo Ndiaye damay saataan li muy wax di ko jëriñoo. est-ce que waaw jërëjëf jërëjëf baax la aji Sabel ndeysaan dem na mhm. sëñ Fallou. da nekkoon fu am solo. waaw bisimilah kon. suñu borom bi li wax ci wayjur. waaw li mu wax ci wayjur ba tey rek. Mm. nga xam ne kenn ku ne moom la waa bind rek doo am wayjur doo am day doo am baay. waaye pour ñu respecté ko. Mm. ak pour ñu am ci moom yërmande ak cofeel ak topp ko ak dégg ay ndigalam. dëgg la tax mu def ko. dëgg la ndax boo xoolee mala rek fi toll. Mm. boo gisoo ginaar fi tool bu caali di di cëf cuujam ni mu koy mettee ni mm-hmm. mu amee ci moom yërmande mm-hmm. noonu mm-hmm. kon wayjur cofeel boobu mu kon defe naa bu bu ëmbee juróom-ñeenti weer mm-hmm. alquran wax ne aouzu billahi min shaytaani rajim wa hamluhu wa fisaaluhu wa fisaaluhu salaatuna shahran mm-hmm. ëmb bi ak nàmpal bi trente mois lay doon fanweeri weer wallaay wallaay nga xam ne te ne bis bi rek bis bi ñuy génn àdduna rek way juróom mën na caa jógee génn àdduna xam nga xam ci bari ñett lu ma kenn seen foofu lañ jaar bi génn àdduna wallaay wallaay ah? yar bi doog a ñëw muy nàmpal wallaay ah, guddi ñëw bu jooyee si yaayam du nelaw waaw ah, bu ko dara dee métti yaayam dee làmb fu nu mujjee fàttand pour jéem xam ba xam li ko war a métti ay ati at nga def ko woon at balaa ngay nga xamante ne bii kenn ku ne boo demee ba am doom rek ci ngay xool xam ne yow seen waajur mu doon sonne ci nga xam ne lii maanaam loolu loolu la woon daal kon yaakaar naa ne nit bu fekkee dane jëmu koo teral mm-hmm. teral gi mooy lépp loo xam luy teraanga mm-hmm. nga jéem ko koo defal mm-hmm. moo xam ci yóbbu màkka la moo xam ci jëndal ko oto moo xam ci tabax ko kër gu baax lépp wala lu rafet loo gis jënd ko yéene ko ko mm, mm, mm. yaakaar naa loo ko deful dul loola rek nga naar bu xorom sax man nee naa ki nga xamante ne sax yaa ngi sa yéene da ngay gis kenn koo xamante ne amul dara ndax wayjur li mu soxla lu ci njëkk mooy nga yëg yëg gi allah ji respect boobu nga xam ne xam nga léeg-léeg nga gis sa benn doom boo xam ne da ngay xër ci moom fekk na sa njaboot yëpp moo la ci gën a yëkk yëkk yërëm la mm. kon yëggee yërëm gi sax bokkul ak alal gi soo amee alal nag mm. waxaale wu ma ko mm. nga xam ne nag loo ko mën a def nag mënoo mënut a fay mënoo ko fay kon ko allo waaw asalaamaaleykum maaleykum salaam kii euh, waaw yaa ngi ci biir kay te nga yokk baat bi yaa ngi yéen a dégg bu baax waaw ñu ngi lay dégg lu baax salaamaaleykum maaleykum salaam na ngeen def kii laa soxla woon Fatou Degene ak tonton Ndiaye Lo. Ndiaye Lo ngay waxal tànn Degene jàkkaarloog yow. <laughs> d' accord naa leen trop. ndeysaan bëgg nañ ko raw. maa ngi woote extérieur en fait euh, man émission bi dafa ma euh, neex surtout thème bii ngeen di def si euh, doom yi nga xam dañuy fitnaal waajur yi. Mhm. mais aussi waajur yi nga xam dañuy fitnaal doom yi. Mhm. bisimilah bisimilah waaw parce que am na ñoo xamante ni ay papa yoo xamante ni euh, defuñu seen cër. Mm. dañuy nekk ay papa yoo xamante ni keroog dégg naa ku wax ni papa yi nga xam dañuy tërëf. Mm-hmm. xale yi di vivre loolu. Mm-hmm. dëkk xale ba tollu nekk mag. Mm-hmm. donc loolu dalay marqué si sa conscience. dëgg la. donc man damay nekk def tout di liggéey pour it koo xamante ni dina ñaanal sama waajur bu góor. Mhm. loolu mu génnee ko ci. Mhm. parce am naa yaay ju jàmbaare yaay joo xamante ni musul bëgg kenn xamal ko dara. Mhm. ay famiyam bëggul kenn xamal ko. Euh, famille jëkkëram bëggul kenn xam. bëggul ñun suñu bopp ñun ñii dund nañu lool man dama ko daan gis waaye sañu ma ko woon wax. mais moom musul taxaw ak ñun wax ñu ci. ba benn jour man si laa si teg sama bët. ma ne ko yaay lu tax muy comporté woo nii. mu daal ni ma du dara. dafa sonn ci dara. di hmm. nëbb di nëbb di nëbb mais xam nga plus ñuy màgg plus ñuy gis yu bëree bari bëri yu yuy am. te hmm. moom ñu taxaw wax ñu ci. tu waa donc après te terewul ni ñun ñoo ngi nii màgg na ñun ñëpp tey jii ñun ñëpp màgg nañu. sëyeguñu hmm. gaa mais tey jii amul kenn koo xam ni gën nañu te amul kenn amul kenn si ñun koo xam ni wàcc na yoon. jusqu'à présent te maa ngi ñaan aussi yàlla gën ñu teg si yoon si mustaqiim. amiin yaa rabbal aalamiin parce que instant yi ñun ñun rek ñoo mën a euh, fay suñu waajur. muy mm-hmm. defal te tey jii sama yaay à chaque fois benn jour sama rakk ci gën a ndaw wax na ko yaay lu tax mënoo génn ci sëy bi. Mm-hmm. mu ni lu tax ma siy génn tey jii su ma si génnee seen papa nekk si mbedd mi di def lu dul noonu fan la ñuy wax dañ naan seen papa la papa yi jiw ak jiw. am loolu bugg bugguma ngeen ngeen ci subir yenn yenn mettital yooyu. dëgg la donc du xam nga affaire yu métti yoo xamante ni dañ koy vivre. dëgg la euh, nga nekk xale di gis loolu di màgg di màgg da dem ba mujj bi. góor bi bëgg ñëw di lay takk sax doo am confiance ci moom. nga mhm. nga am papa boo xamante ni sa yaay ni ci diine gi moom jullit la de nee na waaye doo ko gis mu këpp jëwam mosoo taxaw ak moom ba mu jiite la julli. Mm. donc yooyu yëpp dafa metti si xool quand mm. dafa metti mm. après da ngay naan sax yenn saa yi nit kuy ñëw di lay takk si est su gisee loolu dina la respecté. Mm-hmm. donc du coup ñun tout le temps loolu dañ cee vivre di cee vivre di cee vivre mu lool lool lool te terewul bis bu taxawee da dafa daa dafay ñëw yenn saa yi mel nu mu warul mel ñëw saaga ñu mu kenn musul taxaw tontu ko amul kenn ku mu taxaw tontu ko. Mm-hmm. donc loolu yëpp dafa metti donc xam naa ni daal euh, doom war na respecté waajur mm-hmm. mais waajur tamit war na respecté doom mhm. man daal wax dëgg yàlla loolu bëgg naa ngeen wax ci yàlla maa ngi sant Papa Ndiaye Lo Ndiaye bu baax parce que day ci lu bëree bëri bëri parce que Papa Ndiaye Lo daal comme nit ñi di koy waxee bibliothèque la donc man ku doon sama sago tamit nit ñeneen ñi di amee émission ci télé bi mooy mu am émission ci télé bi di yeete di eh, di gën a parce que maa ko doon eh, suivre depuis eh, émission moom ak mel ne comme RTS donc nit ku baax la te yow tamit taa déggeen nit ku baax nga maa ngi sant aussi sëriñ bi ngeen dalal si plateau ndeysaan suñ Fallou Mbaye ndeysaan ndeysaan <coughs> jërëjëf yal na yàlla fayal ñu leen wax ji ànd na ak yar waaye suñ Fallou ñu ngi ñëw léegi mhm. waxoon nañ ko fii mhm. defe naa semaine passée mhm. dafa am tamit ay xale yoo xam ne soo gisee lu tax ñu xëy di fitnaal seen wéyjur naam dara warul tax sax ñu fitnaal wéyjur hmm. waaye wéyjur war na mët lim doon hmm. war na nekk référence hmm. am na ay xale yoo xam ne dañuy nekk xale ba mag di hmm. dund loo xamante ne hmm. dafay dafay tax ñu xeep ki leen jur hmm. xeeb ko ndax doyuñu leen ci benn fànn muy aji ku jigéen ki nga xam ne bàyyi na boppam ba di dugg ci yenn safaan yi muy aji ku góor ki tamit nga xam ne bàyyi na boppam ba di dugg ci yenn safaan yi nga gis xale boo xam ne su jugee tontu wala su jugee dóor wala su jugee def donte benn diina nangu ko waaye da ngay xam ne lu mu dencoon la àllaaji xale bi li mu wax fi ñu ko tëbee dafa su waaw xam nga gis nga soxna diggéen ñaari waar la mm. li war doom mm. ci waajuram war na waajur ci doom dëgg la xol mm. bu ëmbee ba nekk ci mu mat xele koy réew li dëgg la jële ci ligne bi dëgg dina dellusi dafa am yoo xam ne yii dama la toujours ne la doom bu ñu faju te du wér bari ñaari doom ju koy dëxa ba def loolu wër def dëgg la ndax la ngay gis ak say morom di la ko yeb mm. te mënoo koo faj ak say morom di la ko yeb dëgg la mm. te dëgg li gën a métti mooy gis sa ki la meññ mm. jikko bi la intéressé wu wallaay wallaay te mënoo koo faj wallaay wallaay sëñ Fallou wallaay wallaay kooku góor bu dul wér la dëgg la dama la ne ñett war na borom kër borom kër ak waajur ak bàyyi daa bokkul borom kër bu doonee dëgg dëgg dëgg baat bi dëgg la ci moom lu ko soob mooy am ci këram yàlla jub nag mm. ndax bu jubul àddina tukki mm. bàyyi mm. du tal doom waaye waajur day waaj doom ndax bu màggee fu mu dem man paane Alaaji gis nga li nga wax lu koy dëggal euh, yàlla doguma yàlla yàlla bu la dara dog dama mës a am ci confidence yàgg na ci rajo Dunia benn femme bu ñëw ne ma sama yaay maa ngi nii ci sëy ba am doom waaye mënuma ko oowee yaay mu ne ko noo koy ooyee mu ne ma laa koy ooyee yàgg naa bañ sàllalu bi de maa ngi ñëw wax la paquet bu doy waar. jëlee ci ligne bi sëñ Fall jëlee ko ci ligne bi bokk allo. <laughs> allo bisimilah. <laughs> allo bisimilah aleykum salaam. ñu ngi sant yàlla bu baax kay alhamdulilah. maa ne hmm. moom moom ngay waxal ni sëñ bi xoolal sa caméra. waaw maa maa maa ngi lay dégg man ngay waxal kooku la. Seck. ah Mor Seck. waaw. waaw bisimilah waaw. man de sëñ Fallou Mbaye maa ngi lay nuyu. jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay fay bu baax. soxna Dégem ci la jàllo. jërëjëf Seck mm, jërëjëf Seck. du euh, El Hadj Ndiaye Lo. Mm, yaa rabbal aalamiin. lépp lu ñu ci wax yàlla ñu ñu dégg ak topp. amiin yaa rabbal aalamiin. a baax. ndeysaan bëgg naa ko lu ko raw kooku mu. waaw léegi léegi doo quitté su ko defee laasana jox la sama numéro. nga jox nga jox ma tamit bu soxna si dégg nga. waaw incha allah incha allah bul quitté bul quitté kilifa gi. waaw sekk sekk na yàlla fayal ñu leen ci barke Seydina. soo ma ñetti soxna. ma ñëw la mm. dama ne jigéen jubul. Mm. du weesu ay duma mm. waaye ku ne ci këram te matul kilifa du weesu ay xaste dafa xët dagg saagaw ndey soxnaam mu delloo ko ko mu dagg ka ci def mu delloo ko ko mu dagg ka ci def mu ni ñoo képp ni ko dama fay waaye ni may fayoo du la ump ko mun ko pilaan bii nga sañ tëdd laa li jël di fi sama doom doo ko faj mm. doo wax bi de wax la di akamaa ko dégg mm. <laughs> alaaji dégg naa ko mu ni ñoo toog mm. ni ko sa doom ne tëdd fii ci duma génn àddina ndax liggéey nga mu la ko jot te war na nga baax borom ko nag su wëlbatiwaatee dem tamat bay wax soxnaam lu mu waroon a mën a fay fayuwul gàcce dal na ko ak kersa déggan yett yi bokkul ci sëy bokkul ci imam bi ñu xut ba ci jàkka mag nga sa baaraam ma bank sëñ bi sëñ bi moom du bank moom <laughs> ah, ah, ah, na aw saagaw ci bi ok imam du xut ba ah loolu liiwul ndax yërmaande nekk ci jàkk ji muy hmm, benn kenn waxal yu waxi doom bénéfice la nag. dëgg la bukk yëngu fa. yàllaay hmm. Hmm. te si xel kenn ñu ci woon. la ndax kon doo labat. dëgg la hmm. yett yi nekkul woon ci jàkka. dëgg la damay faral di wax ni la soxna Dégane. ki ñu ne demoon muñ. waaye dañ ne ka lay fekk yal na la muñal. ñaar doon bu dëgg la diggante bàyyi ak ndey. dëgg la xanaa la rafet. dëgg la waaye du arbitré lu ñaaw. safaan ba mooy indi haine bi. mooy indi haine mooy indi lii. li nga war a wax jigéen ngeen di sëy mu toog doom toog. su ñaawee doom ji da koy wan. muy bul bul daw ci biir xolam te dootu dem. ëllëg ak si bi dem ba léegi su màggee di la ko xoolee. dëgg la wala di la ko wax. di la ko wax moo indi tam bi rek moo indi tam bi. kon dama ne. Mm. doom. bu bëggee gudd fan. Mm. na jox respect. Mm. waaye waajur. nam lu mu nëbbu. waa loolu laa la doon wax paquet bi Alaaji Sëñ Fallou ma jox la. waaw parce que su fekkee ne dañu wax thème bi. kii ootee baax na ñu dellu si la ñu waxoon semaine dernière ne. waajur des koy mat. soxna soosu ma seet si woon war na mat fukki at ak ne ma man daal maa ngi sëy am naa ay doom waaye sama yaay mënu ma ko oowee yaay. bu ko sëy mënoo ko oowee yaay lu tax. Mm-hmm. mu ne ma man daal turam laa yaay jaar parce que plus may màgg plus may xam ne waruma ko oowee yaay mën ko tax. Mm-hmm. mu ne ba may nekk tuut tànk bi may gimmi mu ne ma xëy na ay ñeenti at laa commencé. Mm-hmm. ba di gis mbaax. mu ne ma sama yaay laa doon gis ay góor di ko seet mu di ko dugal ci sama néegu baay. mu ne ma image boobu daf maa topp ba sama néegu sëy damay léeg am ay li ma mënul wax kenn ndax sama xol bi la nekk. mu ne may màgg di ko gis mu ne te loolu ale l'époque sam papa xamoon na ko waaye xaw ma lu tax sam papa daanul réagir. mu ne ma koy gis ak ay xaritam ñu koy def mu ne ñuy dal ci néeg ba dalal góor ci kaw lal ba mu ne ma loolu mu ne ma màgg am ci moom nag een boo xam ne mm-hmm. xëy na duma ko ko wax. waaye dama koy manifesté manifester yi nag mooy duma ko oowee yaay. manifester mooy lu ma yàlla wërsëgal su ma ko naroon jox téeméer jox ko benn. mu ne ma lii dama ñëw. te bàyyam xawoon na ko. waaw waaw nee na nee na moom ca la muy fàttaliku. nee na daal li ko jaaxal dafa mel ni xamoon na ko eh. kon lii baax na ñu koy wax ndax eh. xale yi eh. li ñuy gis ci aji baay yi nga xam ne ñu ngay def loolu jànq du leen womb dara du leen womb umul xabaar yi sëg lu ne wala boog nga sa xarit bu ñëw ñu laa laaf ganaar ak pooj wala di génn boîte de nuit ay papa ñooñu seeni njaboot dañ leen di xeeb te loolu dina indi lu ne sëñ Fallou bisimilah maanaam soo dégg ak sëñ Ndiaye jërë ngeen jëf waxtaan rafet na lool kay tabarkalla waaw loolu ñoom itam comme comme ni do waajur doom ni muy maanaam waajur ni muy àq ci doom hmm. doom itam day am àq joo xamante ne moom itam da koy moom ci waajuram moom itam mhm. hmm. àq bi nga xamante ne bii moom la doom moom ci waajuram xam ne moom la ko waajuram njëkk a war a wutal mhm. mooy da ko war a tànnal yaay mhm. waaw tànneef yaay ndax yoon sallallahu alayhi wasallam daa wax ne al ummu madrasatun maanaam yaay école la soo ko préparé soo ko waajalee da nga ci am waxambaane wala nation boo xam te ne bu teey ñaq la ñu doon bu baax lay doon kon jël ki ci ligne bi <laughs> bismillah <laughs> salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi def. ñu ngi sant bu baax kay. macha allah dégg ngeen comme hmm. def nga ba mu baax. ndeysaan tuddee naa leen ko. Hmm. Ndiaye Lo Ndiaye moom ma koy déglu nee naa yokkute rek laay am. ci man alaaji hmm. sëñ bi daanaka laay wax rek pour ci waajur yi. man dama naan ne waajur bu jigéen mooy jur doom ju baax. même ku hmm. man su ma dégg même ku góor su bon sax man pour man euh, waajur bu jigéen daal mooy jur doom ju baax. Hmm. Hmm. parce que yaay la am wax léegi nee na yenn saa yi problème yi dañuy gis koo xam ne day dóor papaam xaw ma day dóor yaayam pati pati bi xale bi dem ba euh, gis yenn yi ba pare bañ papaam. man nee naa waajur bu jigéen dafa dafa am am sutura. xam nga moo am sutura mooy même bu amee problème ak sa waajur sa sa comme nu xale bu jigéen wax sànq nee gis naa ne papa def yenn mais yaayam tout le temps day nëbb. Mm-hmm. jigéen day suturaal jëkkëram su booba ñuy am doom yu retourné situation bi. man gis naa beneen famille suñuy koñ mère bi dafa nduru ku baax. Mm-hmm. mais doom yi presque kenn tekkul te doom yi boo waxee ba tey ñu naan la bëgguñu am jëkkër parce que papa dafa sonaloon sama yaay tout le temps mm-hmm. papa ji su yaay ji su toogee day yàq dexu papa ji. gis nga sonaloon def ma def lii def ma def laa. man su ma ko doon expliqué man na ko man sa man nga baal ma ci wax ji mais sa yaay lu muy def ni c'est pas bien. gis nga jëkkër jabar mënut benn le meilleur euh, sénégalais le plus payé au Sénégal. c'est-à-dire meilleur sportif muy Desagana Diop. Mm-hmm. pas comme suñu proviseur la woon mais dégg naa d'après lu ma dégg nee nañu papa ji mos na fekkee yaay ji di fóot mu mbéj ko. ndeysaan. dégg naa yaay ji sigawul jógul fu mu toog. Mm-hmm. ba njëkk naa koy doo fayu say waxut. ndeysaan. doom ji léegi moom moo yott waa kër yëpp. macha allah leen defal loo xam ne macha allah. pour man ah. yaay ji doom jigéen kii wax ak sëñ Fallou. jigéen bu baax moo ju doom ju baax. nee naa jigéen góor su mel ne jigéen doom su mel ne yenn ci yaay ji la. jëkkër mënoo a ñàkk am problème ak moom mais ba doomu yëg mu nee naa sama diggante waajur lu ñu seen problème seen hmm. problème la dëgg la sama waree sama papa sama yaay sama waa nee nañ bi dugg gën ko wërsëg ndey bàtte bàyyi dëgg la te bàyyi ree mooy lan mooy la bul bul suñu yaay dañuy jaxase suñu bàpp yi man de kenn jànguma loolu su ma ñaan tamit doom amul pour fitnaal waajur. parce que hmm. amuñu pour la. c'est même pas normal. nee na yenn saa dama naan jur jur ñàkk jur doom du yaradal jur bu hmm. moo gën yéen ñi boo ko defee tuutaam fañ say doom munoo fitnaal sa jëkkër sonal ko wala di ko jaxase say doom am lu la neex waaw nit warul ñaan yàlla du jur ci zéro. ndeysaan jur kenn tekkiwut. ndeysaan kenn ñaanu ko yàlla. ndeysaan ah nañ góorgóorlu yàlla daal ko góorgóorlu. jërëjëf ngeen baal rafet na. rafet na rafet na rafet na mm. kon fi ñu daanoon mooy lool mooy da koy da nga koy njëkk a tànnal waajur bu baax. Mm. muy ndey. Mm. ndax ndey dafa dafa ëpp solo daal ndax boo xool comme ni ko moom moom la ko suñu borom subhanahu bi ko waaji laajee ne ko man axaqu awla naas bii mhm. maanaam su ma amee kan moo gën a ma defal ko mhm. da ko ne ummuka mhm. xaal suma man xaal ummuka xaal suma man xaal ummuka xaal xaal abuka moom ko laajee ko kan laa war su ma amee mu sa yaay mu ne ak kan mu ne ko ak sa yaay mu ne ko ak kan mu ne ko ak sa yaay bu muy trois fois mu ne ko ak kan mu ne ko ak sa baay kon ñu gisee foofu ne kon nit ki bu amee war naa jox yaar ñett doo ko jox waajuram bu góor benn mm-hmm. doon sax ñu Sénégal xëy nañu bari suñu waajur ñu gën a jox daal mm-hmm. waaye loolu loolu lañu kii wax mm-hmm. loolu la ñu lislaam wax kon moom waajur moom moom te foog bu góor moo war a njëkk tànnal doom waajur bu jigéen waajur bu baax bu baax lay doon boo xam te ne wu sell xam nga jigéen boo xoolee ci baatu arab jigéen jiim la ak kaaf ak yaa ak nuun li muy tekk mooy jigéen mooy jom yaa gi mooy yaatu kaaf gi mooy gàtt tànk nuun gi mooy noppi kon loolu mooy jigéen jom mhm. yaatu gàtt tànk noppi mhm.